waaw mooy li ma wax rek mooy taxawu gi ñuy taxaw askan wi liggéey bi ñuy liggéey organisation yi may nuyuwaale euh, jàmbaar yi nga xamante ne ñoom la ñuy nekkal sur le terrain au quotidien euh, muy ñaar fukk ak juróom organisation yoo xamante ne tey ñu ngi leen di financer di plus de mille ba deux mille organisations yoo xamante ne laal nañ leen touché nañ leen boobu ba léegi sunu loxo jot na ci ñoom muy euh, beaucoup de secteurs yoo xamante ne tey nous avons accompagné le secteur de l'eau et de l'assainissement le secteur euh, euh, de la lutte contre les inondations la lutte contre les changements climatiques le secteur de l'environnement le secteur de la santé euh, la question de l'éducation ak karangeek secteur de l'éducation. nous avons ngi le Sénégal Yagoul, waaye bu ñu ancrage au niveau institutionnel ak ancrage au niveau communautaire sas lay gën a doon ci ñun ñu gën a góorgóorlu euh, fexe ba askan bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal ñu continuer tamit di gis seen bopp ci ci ci liggéey bi ndax li nga xamante ne organisation moom lay liggéey ñaar yi am na ci solo bi jiitu mooy nga am ancrage institutionnel fexe ba dëkk bi ngay liggéeyal gis njëriñ ci li ngay liggéey ba ci topp mooy nga am un ancrage communautaire fexe ba lépp looy wax rek na jóge ci askan wi njëriñ askan wi te lépp loo am rek mu delluwaat ci askan wi te gëm naa ni taxawaay googu lañu am am ko ci suñuy partenaires yi nekk ci banlieue bi am suñuy partenaires yi nekk ci région yi mu am nag yeneen chantier yoo xamante ne daañ ko tijji yu gën a ambitieux yu gën a yaatu te yoo xamante ne euh, gëm naa ni askan wi daañ ko gën a gis daañ ci gën a gis seen seen bopp